mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale di prestige ñu ñëw ak yéen nag ak xibaar yi xam ne ñoo amoon ci ay bés te seen télévision régionale du prestige euh, doon caa béy wàllu am solo ba tax na nag te jii ñu fas yéeneen dëgtan rek ana lan moo ganoon a fës ci bés yu weesu euh, ci biir àdduna gi biir Thiès ak rawatina biir euh, Sénégal. ñu daal di ko tàmbalee nag ak euh, bés bu am solo amoon nag euh, samedi ñu doon def rek lancement euh, bu njëkk ab journal bu ñuy wax prestige info day génni nag weer wu jot ña jëmmal li ni mel mooy groupe prestige ne ginnaaw bu ñu amee nag yeneen jumtukaay la jëm nag ci wàllu tas xabaar daal di ca toftal nag benn journal boo xam ne ab papier lay doon ñu koy bind muy génn weer bu jot cérémonie boobu nag wala lancement boobee mu ngi doon am fii ci Thiès ci direction prestige Euh, ci teewaayub nit ñu bëri ñëwoon rek feddali seen kóllute kóllëre euh, ki nga xam ne nag mooy Pape Doumbouya di pré de PDG di président directeur général bu groupe Prestige euh, dellusiwaat na rek ana lan moo tax ñu jëmmal ni ni mel ñu teewlu ko ci micro soxna Ramatoulaye Cissé ak Cheikh Fall. lii continuité lay nekk liñ doon def boo xoolee ci sunu support yu ñu am yëpp support yu ñu am yëpp dañ ko ubbil Cees waay amul benn xaj ak seen dañ ciy profiter di lancer appel. Euh, appel bi ci njëkk nag mooy dañ koy wax njiitu réew mi président de la république Macky Sall di ko wax ni tey il faut que jot na ah, ah, structure bu mel ni prestige ñu ñëw jàppale ko. journal bi lu ko tax a jóg mooy wane Thiès Thiès aspect surtout culturel ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni moo nekk Thiès mais aspect politique bi rek rek du loolu rek mais Thiès li fi nekk ci potentiel bari na. je pense que loolu dinañ ci gën a penché wu dinañ ci gën a dox dinañ ci gën a dugg. que euh, bi c'est bien mais am na leneen lu am lu cees am lu du politique rek. maa ngi remercier aussi fii euh, le ministre Yankhoba Diattara euh, parce que recevoir na ma bu yàggul ñu waxtaan ci mbirum occasion bi la ah, di ko remercier ci ci ci ci signalu télé beeg yooyu xool na lépp gis na lépp gis na continue donc d'accord na ni tey jot na ñu ñu am suñu signal donc mu ñu ci jàppale ñun tamit ñu ngi koy remercier ci occasion bi la ñu remercier ko aussi. jàppale bi nag du lenn lu dul nii tey euh, euh, Thiès dafa xaw a manqué lu bari lu bari ci comme support parce que am na yoo xam ne mënuñu ko wax fii mais li ñuy wax daal mooy mooy jot na tey ñu laaj ñu jàppale ñu daal. mais bien sûr continuité la rek comme Prestige TV site internet bi YouTube bi Facebook bi lépp continuité la Prestige moom amul xarma yaama amul xàjj ak sa day lef lépp. Euh, ci éthique ak déontologie comme ni ko métier bi waxee donc loolu moom incha allah ci la ñuy dox ci la ñuy nekk te incha allah groupe bi fekk maa ngi dund fekk ñoo ngi fi nekk ñun ñu ko sanc ci loolu la ñuy liggéey. bés yi weesu nag Thiès xibaar bu doy waar amoon fii xibaar boobee nag amoon ci quartier bu ñuy wax jàmm gën. Euh, benn waay de moom la ñu fekk ñu faat ko wala mu ñàkk bakkanam sax ba ñu fekk ko ca égout Onasia loole nag jur njàkkare ca ña nga xam ne nag ñoo dëkk ca kar quartier gan ci Thiès nekk ci commune bu Thiès Est leeral ci reportage bu am solo bii askan ba nekk ci quartier gan bu cees wala ñenn ci ñoom ci guddib altine gi dee du ñu nelaw ba yandoor la ko waral nag kenn ci ñoom moom la ñu fekk de ñu faat bakkanam daal di ko sànni nag ci égub Onacea di ab dëkkandoom di delluwaat ci anam nuñ ko fekkee. sunu voisins yi ñoo ñoo xawoon a fat ci kanam égo bi moo fat ñu woote pour ñu pour ñu woo Onace pour ñu fàttali ñu leen ko. ñëwee xool fi amul dara bu ñëwee mais bi ñëwee ba ci bii ñu gis ndox mi ndox mi yéeg ba ca kaw ñu nekkoon fii la mais bi ñu duggee di débouché nag ci la ci la ci la yeneen yi génn karang beek ak yax yeek affaire yooyu waaw di ko bësew carrément mais yëri bi mu soloon moom ci lañ gën a xamee ni Cheikh mbay la parce parce que yëri bi mu soloon moom dara dara sikku ci bi ko gars yi tàllalee yëri bi am na am na am na am na ay dagg-dagg moom mi xam ne moom la ñu fekk ñu faat ko mu ngay wuyoo ci turu Cheikh mbay moom dawalkatu taxi la dëkkandoom bii di Ibrahima Gueye di delluwaat indi seedi ci moom sunu grand la woon euh, grand Cheikh Mbaye sunu su suñu mag la woon mag ju baax mag joo xamante ni Euh, man de wax dëgg yàlla am naa fi vingt cinq ans mais mosuma koo xamal dara waaw ku jàppoon ñàmburam liggéey ñëw dugg këram fii laay nekk ba ay dix heures onze heures mais moom huit heures ñoo ko fekk mu wàcc parce que si la yor bu wàccee dugg euh, jël li muy yóbbul yaayam yóbbul ko daal di ñëw sangu tëdd fajar gi aussi su may jóg su may jóg pour dem jàkka ja ci laay daje ak moom muy xëy waaw wax dëgg yàlla ma xamal ma ko ci ci lu ñaaw xamal ma ko ci lu bon. liggéey daan doon daal laa ko xamee. ginnaaw nag bi mbir mi amee ñoom de tiit nañu lool ba tax na nag ñu ngay ñaan kilifa yi daal ñu amal am ab enquête ngir mën a wone nag anakan moo def jëf ju ñaaw ji. yàlla na yàlla leeral lépp. waaw ki def lii. def na lu ñaaw. ndax Cheikh Mbaye amul problème ak kenn. Cheikh mbay xaruwul. waaw man damaa jàpp ne dañ ko faat. waaw waaye nag lépp ngi ci loxoy loxoy loxoy buur yan na yàlla àtte lépp yan na yàlla leeral lépp. ci barke Seydina Mohamed. quartier jàmm gën turam wuyoo jàmm lool nekk ci commune bu Thiès Est ñoom de ñu mës a fàtte mukk bésub fukki fan ak ñeent ci weerub juin ndax jàpp nañ ne nag bés boobee dinañu wéy di ko waxtaanee eh, ci benn dëkk ñaari gaar. ki nga xam ne nag eh, mooy eh, njiitub réew mi di son excellence le président de la république Macky Sall gis ngeen ne jamono yëpp mu nga nekk fale ca bët gannaarub Sénégal diggante Ndar ak Matam ñaari région yooyee. Euh, tukki bi nag am lu tollook euh, ab semaine njiitub réew mi nekk fa di inauguré ay hôpitaux inauguré ay yoon jëmmal ay projet euh, bés yi weesu nag mu nga woon fële ca diwaanu Kanel département bu Kanel Euh, doon inauguré ay infrastructure inauguré nag euh, RTS 5 bu tam bu Matam waaye nag jëmmal ab pont bu am solo mooy pont euh, dëkk bi di gàngee Souleye mu nekk nag pont boo xam ne daal dina tax ba askan ba nekkee ca goxub Danje Mayo jafe-jafe yi ñu doon am ca la jëm nag ci wàllu dem bi dikk bi dëttu leen son excellence Macky Sall wax ne la ma diggee woon ak yéen di naa ko firndeel ñu teewlu ko. Je venu tenir la promesse que je vous avais faite de sortir la zone du Dandemayo de son enclavement. tey dama ñëw ngir firndeel li ma diggee woon te moo di génne gox bi di Dandemayo ci jafe-jafe yi mu doon jànkonteel ci wàllu dem bi ak dikk bi. projet bi waral li projet bu am solo la. ndax dina law. ba Oréfondé ba sax ci Bosseya yoon yi nga xam ne meeru Orkadiéré sàkku woon na ko dinañu ko jëmmal rawatina yoon bi jóge Kanel dem ba ci Soringo lu waral loolu yépp mooy fexe ba désenclaver gox bi lu tolloog 240 kilomètres ci yoon yi nga xam ne guddoon nañ ko ci gox bi njëg bi tollu na ci lu ëpp juróom benn fukk juróom ci ay milliards ci suñu koppor inauguré naa tey pont bi nekk ci dëkk bi di Ganguel Souleye loolu yëpp bokk na ci lu ñu diggee woon kon yenn waa Matam waa Kanel tey réalisation yi wone nañ ne li nekkoon suñu yéene mooy fexe ba daal génne gox bi di Dandemayo ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la doon jànkonteel ki nga xam ne nag mooy pap Bassirou Diop di maire bu commune bu Thiès Est bés yu weesu it moom ci wàllu boppam mu nga doon amal nag tukkib nemmeeku xool la nga xam ne nag ay liggéey la jëmale konte ci commune am boobee la jëm nag ci wàllu defaraat école defaraat ay pavage ak yeneen ak yeneen ba sax ci marché ya loolu nag moom jàpp ne lu am solo ndax nit ki nee na suñ la denkee rek wareef la nga daal di wàcc xool ngir nag euh, taxawu askan bi ñu déglu nag ak ki nga xam ne mooy maire Pape Basir Diop bi nga binaa bu mu amalee tukkeem euh, tournée bu noppi ba ba pare nag àdduna ci micro Moussa mbay ak soxna Marème Ly bureau municipal ak tout le conseil municipal parce que defe naa ni suma ma gestoo damay gis conseil bépp añ sama ginnaaw ñu ñëw doon def si tournée boo xamante ni dafa tudd tournée visite de chantier loolu moo doon ndaje bi bon di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq di wax ni ñu liñ tax a jóg muy liggéey bi liggéey nag dafa naa ni boo ko sumbee boo toogee ba mu am fu mu toll war nga mën a dem xool manquement yi ak euh, yi nga xamante ni nga ci war a complété loolu moo doon solo ndaje bi tey ji dafa naa ni c'est très salle de classe comme ni ko directeur waxee te dañ ko réfectionné entier bu ñu duggee classe yi xam nga dañoo wax rek te gisu leen valeur yi c'est très important que tam ñu xool ko parce que bu ngeen xoolee pas de porte Euh, dañ ko karale nga dugg ci classe yi classe yëpp lañ karale defaraat électricité bi peinturaat classe yi charpente gis ngeen toiture yi bu xoolee li mu wax xam nga école bi defe naa ni man mooma mag defe ndax dañ cinquante huit kon magee na ma kon pour ngeen xam ni demande boobu yàgg na mais ñun nag dañ ci sant yàlla bi nga xamante ni Sénégal yëpp wala Thiès yëpp xam nañ ni école bi ça date de cinquante huit ba négee ni musul am li mu am ak état bi mu aman ak état bi mu am ku nekk xamal na ko parce que ñun ñëpp fi dëkk doomi jàmm mi ngi nii di def témoignage te moom dong ñu fiy def témoignage bari na. adjoint maire a ngi nii euh, Magay Sarr mu Dame Thiam conseil municipal Maymouna Sow a ngi nii euh, di conseillère ñoom ñëpp ñu dëkk fi Demba Diop ñoom a ngi nii si li fi dëkk ci responsable ñoom asso Sarr yëpp ak ñi nga xam ñooy population jàmm gën parce que tam am na loo xamante ni wet di moom gis bokkul parce que ñun di won jóguñu pour. def euh, animateur dañuy ñëw pour wone ay réalisation yoo xam te suñu devoir la parce que nous sommes les responsables. waa ax lu nawetaan ñoom de ñu nga bëgg daal ñu daal di def innovation maanaam amal ay coppite la ko waraloon nag amaloon nañu nag ndaje bu am solo ngir xool rek. ana nañ la ñuy def ba digitaliser euh, ni mel la jëm nag ci wàllu licence transfert ak yeneen ak yeneen mënees nañ leen ràpp nag su luy ñoŋee naal la jëm ci wàllu réserve ak trucage la jëm nag ci wàllu euh, licence dina euh, won ginnaaw la nga xam ne mooy mouvement nawetaan xeexe boobu nag wala lancement projet boobu xam ne. Euh, une ASC un emploi maanaam jëmmal benn projet boo xam ne ASC bu nekk dina mën a ñoŋal benn prêt jagleel ko ay ndaw loole nag nekk ci lu am solo teewaayu euh, ki nga xam ne mooy ministre Yankoba Diattara nee na sax gouvernement Sénégal dina gunge waa nawetaan waaye nag ki nga xam ne mooy président ONCAV di Baylo Bass dellusiwaat na ana lan moo waraloon ndaje bi ñu teewlu ko ci micro Alaaji Fallou Ndaw ak Moussa Mbaye initiative bees bi mooy lii dañ ko tàmbali woon am na ñaari at Euh, xam naa ni mbas mi dugg ci bi ci mbas mi duggee nag ñu daal di taxawaat mais ren comme levé nañu mesures yi amoon yëpp ñu ne nañ leen commencé waat mais li ñu commencé waat mooy fexe ba lo këyit lépp loo xam ne këyit la woon yoo xam ne ñun waa nawetaan dañ ko bëggoon ñu fexe bu mu bañ a amati ñu commencé ko ci at administration muy affiliation réaffiliation yi léegi président ASC bu nekk mën na toog këram ci plateforme fi mu toog ci téléphone am mu réaffilier ASM ñu pare ñu ne assurance bi aussi fexe nañ na koo def ndax dañ ko digitaliser ñu ut ci partenaire boo xam ne askar lañ ko tudde ñu ànd ak moom ci ñu ànd ak moom ci loolu ñu ne licence yi nga xam ne aussi dañ ko daan am licence yëpp ren numérique lay nekk donc yëpp ci plateforme lay nekk digital transfert yi ci plateforme lay nekk fu nit nekk ay à temps réel mën ngaa gis li xew ci Sénégal yëpp fraude sur licence apparemment jàpp nañu ni fekkee li ñu waaj wax mënatul am parce que car nit ku nekk léegi benn licence rek nga mën a yëpp ci avantage yu digitalisation bi la moom tax ñu mën ci ñu mën cee profito tey jii donc ñun dañoo jàpp ni dañu war a avancer topp li xew ci la ñu ne ñu digitaliser

vivre ensemble. direction agence sénégalaise buy yore wàllu promotion exportation ñoom nag amaloon nañu ndaje bu am solo euh, fii ci Thiès ci benn bërëb doon waxtaanee nag ana lan nañuy taxawee euh, ndaw yi nga xam ne wala jigéen yi xam ne dañuy yëngatu ci wàllu petite et moyenne entreprise ngir fexe daal ba ñu euh, mën a ñoŋal seen li jëm si seen wàllu njëndub njaay jaarale ko nag ci xalale yu yees yi loolu nag moo taxoon rek lu tollook ay ndaw yu bëri jóge ci fukk ak ñeent régions yi nekk ci Sénégal ñu leen doon saa xam-xam ngir mën a jëkku nag anam ya nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ci seen euh, bërëb yooyee jëm nag ci wàllub njëndëb njaay ki nga xam ne nag mooy secré secrétaire général bu ASEPEX di bàcc Ciss dellusiwaat na ci solop ndaje boobee ñu teewlu ko ci micro Ahmadou Bambali ak Adiba. ñu ngi fii tey ci région du centre euh, Thiès pour dajale. ay entreprises yoo xamante ni dañu nekk ay entreprises yu ndaw wala yu ndaw ndawaan nekk ci région du centre muy Thiès di Fatick di Diourbel ak une partie de Dakar pour jéem leen a tàggat ci xarala yu bees yi yi nga xamante ni tey jàpp na ni fi jamono toll nga xamante ni dem beeg dikk bi dafa gën a néew ci ndax euh, mbas mi fi am mais bu weesoo loolu jamono fi mu toll ci dox ak ci xam-xam ak ci xereñ dafay laaj entreprise yi nga xamante ni ñu ngi nekk di production ñu man di jaay seen produit ci n'importe marché ñun suñu rôle ci Aspex mooy fexe ba entreprise li ñuy liggéey li ci gën a baax ñu yóbbu ko bitim réew pour mu mën a contribuer ci création de richesse mu mën a contribuer ci création d'emploi ci xëyum ndaw ñi moom moo tax ñu créer benn plateforme boo xamante ni ñu ngi ko tuddee Made in Sénégal ànd ci ak sunu ay partenaire muy waa GIZ coopération allemande nga xamante ni ñoom ñoo ñu accompagner ci projet bi pour que ñu mën a ay entreprise ba ñu mën a euh, non seulement xam nu ñuy jaayee ci en ligne mais aussi accompagner leen ba plateforme boobu nga xam te ne teg nañ ko ñu jël seen entreprise dugal ko ci nga xam client bu nekk France wala bu nekk États-Unis wala bu nekk Afrique du Sud da nga marchandises yooyu nga xam te ni entreprise sénégalais yi ñu ngi koy proposé leneen li nga xamte te ni loolu lañ dolli mooy fexe tàggat ay ndaw ci xarala yu bees yooyu nga xam te ni ñoom ñooy dem ci entreprise bi jéem leen a dimbali pour que ñoom ñu mën a wane seen produit ci internet bi ndaw yooyu ñuy tàggat nag dañoo bëgg a participer ci li nga xamante ni dafay bokk ci création d'emploi parce que comme ñun suñu métier mooy accompagner entreprise yi ñun agence lañu bu nga xamante ni dañuy accompagner secteur privé bi kon te ñu jàpp ni philosophie création de l'emploi ci secteur privé privé bi lañ ko mën a lañ ko mën a xaare kon bu ñu gënee ñoŋal entreprise parce que si on développe la PME bu ñu mayee doole PME dana tax PME boobu am capacité wu jël ay nit. ñi nga xam ne nag ay puune lañu am ay jafe-jafe lool sax ci seen euh, nekkiin. bés boo xam ne nag dañu leen koo jagleel jagleel ko nag la nga xam ne mooy euh, ñaax askan bi la jëm nag ci euh, feebaru euh, boobee di feebaru puune waaye nag ñoom de wax nañu ba ñu jëlee kàddu wax nañ daal jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy jànkoonteel ci seen rawatu na seen wér-gu-yaram loolee nag tax na ba ñu ngay ñaan ki nga xam ne euh, mooy ñi nga xam ne nag moo waa Sénégal ñu fexe daal ba bàyyi leen xel lool ndax euh, la xam ne nag euh, mooy seen nekkiin soxla nañ daal ñu jàppale leen ci ba tax na nag ki nga xam ne mooy Mouhamadou Bamba Diop di direct di président ANAS di association nationale des albinos du Sénégal yéy na yàbbi ca nga xam ne nag mooy jën jafe-jafe ñu teewlu ko ci micro Cheikh Fall ak ak soxna Fatou Kara Gueye nañu dem ci chef de service régional yi action sociale yi muy STRAS yi ñu dem yóbbu fa carte yi waxtaan ak ñoom parce que bi ñuy démarrer liggéey bi euh, ay enquête la woon tey booy natt ci albinos yi li ñu renfermé ci ay handicap dafa bari ki nga xam ne dafa am problème mu bët du gis ki nga xam ne tey mënta def fanweeri minute ci naaj bi produit bi muy diwoo bi nga xam ne moo ci gën a yomb gën yomb boo deful ndànk muy muy cinquante wala cent indice dina jar lu ëpp quarante mille kooku boo ko jagleelee ñetti junni euh, juróomi junni par ñetti weer pour man kooku yeyee na ko waxuma nag problème mu faj bi. kon yooyu ay information la yoo xam ne dañ ko war bokk ak suñu autorités yi bu ko defee bu ëllëgee bu ñuy saytu ay loi ñu koy wax ay ay ay projet de bu ñuy saytu ay projet muy projet de filets sociaux dinañ xam ne vraiment pune yi. seen situation doy na waar doy waar boo xam ne xëy na la cay seen ak danañ leen ko ci sóoraale bu loolu weesoo euh, maa ngi ñaax aussi euh, suñu autorités yi bu ñu jógee ci problème mu carte d'égalité des chance bi euh, li nga xam ne mooy projet centre bi di projet bu ambitieux nañ ñu ci accompagner wax naa aussi ci problème mu subvention yi subvention yi duma fer di ko jooy ndax bu ma jëlee exemple tey dëkk bu mel ni Kenya nga xam ne ci Afrique la ne promulgué loi comme niñ ko defee Guinée bu yàggul dara ñi nga xam ne ñooy kuréelu albinos yi cent cinquante millions de dollars la leen état bi di alloué par année pour seen prise en charge te chaque jour ñoom ñi ngi ñaan ñu yokk ko ndax doyul wàllub njàng mi euh, ñi nga xam ne nag mooy euh, étudiants yi nekk ci université Iba Der am bu Thiès bés yi weesu it waneen nañu seen bopp waaye nag ci anam ba nga xam ne euh, bokkul woon mukk ak anam yam ya ñu daan wanee seen bopp ñu daal di génn nag ca mbeddu Thiès daal di bare national bi daal di jëm lycée Malick si génneep ndaw ya fa nekk wala élèves ya doon def composition waaye nag jafal tëli oto ñu làkk ko loolu nag nekk loo xam ne nag lu doy waar la ñoom nag ana lan moo tax ñu jëf-jëf ni ni mel wax nañ ne daal la jëm nag ci seen université boobee liggéeya nañ ko ñoŋal ngir ñu mën a anam amal seen njàng ci anam nu mu waree ka nga xam ne nag mooy xalifa Khalifa Ababacar Sy Traoré moo xool seen tur ñu teewlu ko. tey les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ñoo continué waat seen grève bi nga xam ne tàmbali nañ ko depuis comme ni ngeen ko gisee yàggoon nañoo nekk di réclamer suñuy chantier voilà am na yoo xam ne ànd leen lañ fi boobu ba léegi mënuñoo commencé seen i ndax amuñu ay classe amuñu ay table banc ak manquement yu bari yi nga xam ne mu ngi fi université bi suñu université bi amul mur de clôture suñu station d'épuration yi ñu diggoon ba léegi dara avancé aussi ak yeneen yeneen yoo xam ne buñ ko doon lim fii ba suba duñ fi jóge wax nañ ne nag sonn nañ étudiants de Thiès yi def nañ lu ñu waroon def yëpp commencé nañ fi par ay décréter ay débrayage jóge fi def fi ay grève def nañ fi ay sitting def nañ fi sax ay marché pacifique loolu doyul si koor gi defoon nañ fi marche jóge fi cees ba jam ñaajo kon bu fekkee waxtaan rek loolu yaakaar naa ne moo nekkoon li gën a oyof Thiès yàgg na ne ay at a ngi mosuñu leen dégg ñu wàcc nii mais étudiants nañoo dañoo sonn tey jii nag jug nañ ñu génne Thiès ñëpp ñu xam ne ne instant yi nii on en a te bu continuer nii nii fu mu yem na fa yem. kenn du ko déclaré foron kenn du ko déclaré lépp lu ñu doon mus di def déclaré nañ ko wax nañ ne suba dinañ def lii dinañ def lii. waxtaan nañ daje nañoo ñoom toog nañ wax nañ ñu lu ne. université léegi mu tëj ñaari weer ñetti weer moo ñu fi dese mënuñoo jël booy yi andi leen fi année te booy yi ñëw fi dara def année blanche ba léegi mënuñoo am jàng bu normal loolu nag dañ koy déplorer. tàmbali nii duñ si dellu ginnaaw à chaque fois lu ñu doon def dañuy naan dañuy teg tay pierre tegaat beneen bi nii nag moom mu gis ñàkk gis ñëpp gis nañ te noonu lañ koy nar a ba keroog ñuy am lu ñuy ah soxla dem nag fële ca bët euh, saalumub Sénégal ca Casamance gis ngeen ne nag armée Sénégal mu nga doon amal rek la nga xam ne nag moom mooy ratissage daal di daal seetal gox ba ba mu set wecc ba tax na nag euh, ci bés yi weesu lu tolloo ko juróomub euh, camp rebelle yi xam ne ñoo bokk ci MFDC camp yooyee nag daal nañu nërmee nërmeelu armée Sénégal teg leen loxo mu nekk nag liggéey bu am solo ki nga xam ne nag mooy colonel Souleymane Kandé mi nga xam ne mooy commandant jaune militaire numéro 5 euh, wax na ne daal opération boobee la tax ñu def ko mooy fexe daal ba askan ba nga xam ne ñoo dëkk ca gox ko xam yooyee mën a dellub seen dëkk daal di amal seen activité waaye nag fexe daal ba euh, amal kaaraange bu mat sëkk ba la nga xam ne nag mooy la jëm nag ci wàllu wàllub euh, dogale nit wala def ñaawtees ñaawteef daal di jóge ca gox boobee di Casamance ñu déglu euh, colonel Souleymane Kandé effectivement ces populations à retourner dans leur territoire. li waral ñu amal opération yi ci Casamance dañoo gis ne askan bi nga xam ne dañoo jóge woon seen dëkk c'était nécessaire ñu delluwaat fa ndax nit ki amoo lu dul sa dëkk loolu moo tax nag ñu amal opération yi ni mel. Euh, doora yoon ko nag ci weer yee weesu gis nañ ne nag opération yi euh, amal nañu am na njëriñ gis nañ ci euh, avancement bu am solo ndax euh, ñun ñëpp suñu objectif mooy daal euh, fexe ba lépp képp koo xam ne rek doomu Casamance nga nga mën a nekk euh, ci sa dëkk te doo am benn jafe-jafe ñun nag suñu wareef mooy fexe ba aar population bi loolu moo tax nag ñu amal opération yi gis ngeen ni nag opération yi ñaari semaine a ngi nii amaloon nañ nag ay intense bombardement ci arrondissement bu Niassia Euh, élément yi nga xam ne euh, ñoom ñoo bootoo euh, ci zone militaire numéro 5 jot nañu def nag liggéey bu am solo maanaam jot nañu wone jaloore ndax lu tollook ay base arrière yu MFDC yu bëri nangu nañ ko base yooyu mooy Ahinga nangu nañu Badem nangu it Bagam nangu Bunik nangu Jileyor Euh, base yooyu yëpp ñu nga nekk ca frontière ak Guinée Bissau en tout cas armée bi daal defi nekk ngir aar askan bi ba tax na nag suñu liggéey dinañ ko def ci anam nu mu waree ndax euh, nit ñi nekk ci seen jàmm maay dellusiwaat di wax euh, jërëjëf ñi nga xam ne ñoom ñooy combattants yi xam ne ñoom ñoo nekk ñun fii ci Casamance te di amal liggéey bu am solo ci anam yu mu waree. wàllub politique euh, ki nga xam ne nag mooy Moustapha Niass euh, amaloon nag ndaje bu am solo euh, bés yi weesu ci alarba bii sax doon màggal rek appel ba nga xam ne moom la defoon ci weerum juin ci atum 1999 jëmmal rek AFP ñoom nag amaloon nañu waxtaan bu am solo nee na sax ca waxtaan boobee wala ca ndaje boobee la xamle nag ne ci ndorteelub 2022 dina daal di jël lëng yi jox ko ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci partim ñu daal di yor parti bi daal di yilif waaye nag leeral na ne euh, AFP dina wéy di ànd ak benn Bokk Yaakaar ci élection législative yi di ñëw ñu déglu président Moustapha Niass. congrès AFP bu neexee yàlla la direction de l'AFP incha allah rabi d'ici la fin du mois de juillet ci lañ koy fixé ce sera certainement probablement et presque certainement de manière certaine je veux dire dans le premier trimestre dans le premier semestre de l'année 2022 après les élections locales mais du man kenn rek maa koy décider ñi ko war a liggéey ñu ngi ciy liggéey déjà buñ jàppee dara bi jàpp ko ci congrès boobu bu ñëwee dootuma nekk bu ma ko fekkee de parce que ma bakkan moom ma ko yàlla moo ko moom mais bu yàlla defee ma fekkee ko je ne serai plus secrétaire général de l'AFP parce que deux ans doy na fukki at a ngi bu na rappelé na ko léegi may wax xale yi préparé leen ngeen jël suñ ma toppoon jël nañ depuis juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at mais léegi la yàlla tuddi ne léegi ils sont donc je ne serai plus secrétaire général de ay présidence d'honneur ak yooyu ëllëg la xaw ma lan lay doon xaw ma jeunes yi lan la ñuy décider man préparé ma poste di quitter poste di préparé beneen tubéy bu moo ko tegee de côté rek ma sol pyjama maa ngi yore sama kurus gii ak sama pyjama waaye fi ñu nekk nag fi ñu gestu gis ma tegu ne AFP membre fondateur Benno Bokk Yaakaar la AFP ci partie yi dirigé Benno Bokk Yaakaar la autour du président Macky Sall qui est le président de Benno Bokk Yaakaar incontesté et incontestable ñaareel ba mooy élection yi jëm AFP ci benn bokk yaakaar loo koy def su ci amee ay jafe-jafe nag yàlla moo xam AFP réglé ko na mu koy réglé ci yoon ak sutura ak mët dal ak doy mais ñun élection yi di ñëw ci benn bokk yaakaar la ñu décider ca lañ koy def mbokk yi nag ñu daal di xuus àddu la nga xam ne nag moo yitteel bi réew mi di Sénégal seen télévision régionale du prestige bés bu yàlla sàkk mu cay béy wàllu am solo la ca gën a fës ci ci li xam ne moo amoon ci semaine yi weesu ñu daal di ci ànd ak soxna Mariam lii ñu tàmbali xibaar yi ñeel biiru réew mi ak capitaine Omar Touré moom nag moo yoroon rek euh, enquête ci li jëm ci affaire Ousmane Sonko Adji Sarr moom nag daal di nañ koy euh, génne rek ci bopp gendarmerie nationale ndax rek moom euh, respecté wul lii di devoir généraux militaires yi. kii di njiitum réew mi di makki Sall nag moo nekk chef de des armées moo daal di jël ndogal boobu rek ci benn décret bu mu signé ni ci alxamis ñu fàttali leen ni rek boobu boobule dafa defoon benn sorti ci taskatu xibaar yi ngir rek wax euh, dossier boobu nu mu demee. kii di euh, général Moussa Fall nekk au commandant moom nag daan dinañ koy nome au commandant de la gendarmerie nationale nommé ko itam njiituma justice militaire mu wuutu rek kii di général Jean Baptiste Tine moom mi nga xamante ni dafa euh, war a jël retraite kii di Moussa Fall nag moom na daal dina wone ay jaloreem fépp fu mu mënte dem ñu fàttali leen itam yoroon na benn poste fële ca gouverneur bu palais kii di njiitum réew mi di Macky Sall euh, ñaaxaat na askan wi ñu dem euh, vacciné wu ci ngir rek faagaagal mbas bi waaye itam ñaaxaat na leen ci ñu respecté mesure mu ngi ko xamle nag fële ca Kanel ci li jëm ci tournée économique am bi muy amal ci région bu Matam ndax nee na si jamono yi ñu nekk mbas mi dafa gën a am doole fii ci euh, Sénégal moo tax rek daal muy fàttali askan wi ne ko feebar bi mu ngi fii ci Sénégal mu ngi Afrique waaye itam mu ngi ci àdduna bi lii rek rek lañ leen indiloon ci xibaar yi ñeel biiru réew mi. pàkk boobee di jëmmala yitteel bitim réew bés bu yàlla sàkk it seen télévision régionale di ca béy wàllu am solo ngir fexe daal bu askan bi xam ana lan moo gën a fës ca bitim réew rawatina ci bés yi weesu ki nga xam ne nag mooy rox soxna rox soxna Ramatulaay Siise moo ca béy wàllu am solo ñu ànd ak moom. ñu tombali xibaaru bi bitim réew yi ak njiitum réew ba woon di Laurent Gbagbo ginnaaw bañ ko tëjee ci lu tolloog fukki at ca CPI ñibbisi na démb ci alxames gi mbooloo bu takk moo ko teeru woon ñu fàttali ne Laurent Gbagbo ci atum 2000 la nekkoon njiitum réewum Côte d'Ivoire ci wote yi amoon 2010 nag la d'accordul woon ci résultat ya ba taxoon ay xeexoo jiboon ca ba ñu tëjoon ko gouvernement bu réewum Zambie xamle na génnub àdduna njiitum réew ba woon di Kenneth Kandar nekkoon père de l'indépendance dëkk boobu moom nag ci ko doon dàkkantalee Mahatma Gandhi bu Afrique li ko waral mooy dafa xeex ba réewub Zambie daal di am indépendance ci jàmm ci atum 1964 moom nag jot na jiite dëkk ba ci li tolloog fukki at ak juróom-ñaar moom bi muy gaañu mu ngi am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñaar ñu jeexalee xibaaru bitim réew yi ca réewum neppal ak Bhoutan bu toll ci fukki nit ak ñetti dal dinañ ñàkk seen bakkan ak ñu bëri tamit dal dinañ réer ginnaaw taw bu metti bu màbbal ay bâtiment te it amal fa ay yàqu-yàqu yu bëri premier ministre réew Bhoutan dal dina génne ab bataaxal xamle ne mu ngi jaale famille yi nga xamante ne ñoo ñàkk seen bakkan te it xamle na ne ab équipe de secours egsi na ci bërëb yooyu. Ramatoulaye Cissé ci xibaar yi teel bitim réew mbokk yi foofee sax la xibaar yi buuree ci seen télévision régionale di prestige mu nekkoon xibaar yi nga xam ne day am ay bés seen télévision régionale du prestige di ko topp euh, semaine bu jot ngeen wéy nag di ko seytaan bés bu yàlla sàkk wala semaine bu jot loolee nag jur mbégte bu am solo ci mboolem seen ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci prestige delluwaat gërëm leen sant leen rawatina yéen xam ne yéen nekk bitim réew ngeen ñuy saytaan. ci réseau bi ñuy wax IPTV am ñu tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestige.com ak page YouTube bu Prestige waaye nag dellu siwaat leen wax leen ne man ngeen wéy di télécharger application Prestige TV ginnaaw bu ngeen gëlee Google Play su ko defee nag xibaar yi amee ci bitim réew ak biir réew mi di Sénégal ngeen mën ko am ci ganam nu mu gën a yàmbee ci seen téléphone portable ak seen ordinateur mbokk yi semaine bii Prestige di leen ko toppal mbokk yi jërë ngeen jëf.